على من علي بلا سوزدي دور الله هدايا بدي على من علي بلا سوزدي دور الله خلاص بمن برما فين فين كجالي فين لا كنك عايزن aussi di euh, créer aussi di di di liggéey sax d'abord la ñuy wax mais ñu gis ne tey jii berge yi war nañ cee mën a defar loo xam ne dinañu amal njariñ mais pas ñu koy sànni boo gisee li yokk euh, tax ñu gën ko xalaat aussi loolu ci lay bokk waaw xalaat bi nag ni ñu dëkkee nekk lu dul euh, gis berge bi mu am forme boo xam ne tey jii defar nañ ay chaise yoo xam ne mën naa ne moog berge yi comme forme boobu noonu sorewut ndax forme boobu la doon la doon liggéey léegi bi defee noonu tamit ñu jël berge bi isin ko defar ci benn salon après ci ci xool testé ko gis ne lii nag lu war a mën a nekk la daal après na ci leen amee yeneen idée yoo xam ne ci leen mën a liggéeyee comme salon yi comme ni mu demee nii. parce que xam nga yi ngay gis ne ay une place la quoi yoo xam ne tamit ay trois places la ay comme deux ñaari bërëgu ñu simulé ko su boobaa da nga mën a am trois places ndax d'ailleurs boobaa dina dina dina mën a yaatu mais yi ngay gis nii bu noo ko liggéey du jël temps mais fekkente ne nag beneen boo xam ne mooy trois places bi. boobu faaw nga taxale bërëg bi def say calcul mën ko dagg normal su boobaa dina la dina la jox trois places léegi nag su boobaa boobu dina xaw a jël euh, tuuti temps pour ñu liggéey ko. matériel bi mën naa ni yëmbul nag ndaxte boo dee xool euh, li nga xam ne ñoo koy defar lu ñuy lu ñuy taxale la ak suñuy loxo mais tey jii bu amoon na machine yoo xam ne soit dinañu yombalal dinañu mën a yombalal dagg bi su boobaa matériel bi dina gën a dina liggéey dina gën a mën a yemb ci ñun quoi. mais en général euh, luy doon suñu jafe-jafe mooy ñàkk matuwaay boo xam ne dina ko liggéey ba xam liggéey bi su boole mënoon ko dinañ ko bëgg liggéey noo xam ne comme niñ ko bëgg a liggéey dëgg dëgg mais souvent leen mooy des muy ñàkk ñàkk matériel ndax boo dee xool tey jii bu ñu amoon matériel tey jii ma euh, ngay gis nii am na benn ku boo xam ne dinañ ko mën a dagg te suba mën na bañ a am benn jafe-jafe mais tamit ñàkk matériel day xaw a feeñ souvent ci ci ci ci liggéey bi daal vraiment mu nekk machine boo xam ne ñu ngi ko euh, bétonnière la aussi ñu fabriqué ko def ko ak ak barigo boo xoolee tamit voilà mu nekk machine boo xam ne am na doole trop daal vraiment euh, te si machine la boo xam ne tamit li mën a li mën a li mën a li mën a liggéey bari na ndaxte moteur bu ñu ko monté am na doole trop boo dee xool day gaase benn saaku ciment lay gaase waaw benn saaku ciment lay gaase boo dee xool comme boutonnière yi comme boutonnière bu ndaw la rek nga xam ne moom mën na jël benn saaku ciment mu nekk machine boo xam ne vraiment liggéey bi. garanté na te aussi tamit dëgër na trop trop trop. Euh, ñi ngi ko defaree ak euh, barigo d'abord lan fabriqué mbànn mi boo dee xool tamit lii ñu fabriqué tamit ay ay ay tib la yoo xam ne tib yu am doole la quoi moom lañ ko cadré lii ci suuf moom ngeen gis muy table bi aussi euh, même là aussi moom ngeen gis tamit ay ay pono la nga créé pour tey ji boo ko doon déplacé déplacement bi day yomb trop. voilà weñ bi ngeen gis ni mooy masse bi quoi tey ji boo comme si boo ko bëggoon a boo ko bëggoon a boo a comme boo xëccee rek léegi da ngay am da nga koy am muy ñëw léegi tamit boo fekkente nga bëgg déplacer kii bi bétonnière bi lañ bi la ñuy soxlawaat pour dugal ko fii lañ bi la ñuy soxlawaat pour dugal ko fii lañ bi la ñuy soxlawaat pour dugal ko fii pour comme tey boo ko déplacer da nga koy mën a yëkkati nga dawal ko sans problème comme nga déplacé bi nañ ko bëggee quoi yaa ngi comprendre voilà xam ne léegi tey jii boo génnee rek après da nga amaat. waaw idée boobu moom euh, fi jigee jógee fenn la muy dama dama nekk ñoo xam ne ay maçon lan vraiment ñuy ay samay samay samay grand tamit euh, nekk ci chantier yi ma yàgg ak ñoom ndax man mii di wax ak yow jaar naa ci chantier yi def naa ci diir bu yàgg daal vraiment te aussi di wax ak sama papa maçon la woon. Euh, bi ñu demee bu mag comme que tamit ci liggéey bi la nekk war nañoo xalaat loo xam ne tamit war na may doole euh, mason yi ñoom tamit ñu mën a ndax tey jii man bu ma saan nekk sànq dèjà bu ma saan di gaase da ngay gis dañuy jël peel di sëgg di gaase mu leer na la loolu métti na. mais xëy na ñoom nag amuñu amuñu amuñu beneen matuwaay boo xam ne soit dina leen dina leen gën a yombalal liggéey bi après na ci laa toog ma ne naa jéem a créer daal benn affaire soit euh, xool benn affaire ma ma créer ko. bi mu demee noonu tamit après def le tout ma ne naa defar benn bidonnière rek pour gën a dooleel maçon yi parce que nekk na loo xam ne yaakaar naa dina leen arrangé trop surtout ci yen liggéeyu métti yi daal idée bi am na fi te wax dëgg yàlla xam-xam bi tamit mi ngi fi euh, te jii tamit xëy na am am ñàkk doole bi ñàkk doole moo tax lu bëree bëri dañ koy bëgg a defar mais duñ ko mën defar souvent mais tey jii amee koo xam ne teg nañu loxo wala ñu jàppale ñu lu mu néew rek ñu mën nañoo defar yeneen ak yeneen ak yeneen parce que xam-xam baa fi te wax dëgg yàlla am na tamit amour amour pour liggéey kon léegi dañuy dañuy ñaan euh, nit ñi ñu ñëw aussi dooleel ñu parce que nit koo gis tamit day soxla ñu ko jàppale ñu dooleel ñu jàppale ñu ñi nga xam ne tamit aussi ñoo nekk ci kaw parce que lii vraiment nekk na loo xam ne bu ñu ci jàppalee mën nañ cee def yeneen ak yeneen ak daal. lii nag xam naa commencement la rek tàmbali la ndax lii mooy première machine bi nga xamante ne maanaam moom la déparé gun te jàpp naa ne maanaam euh, maa ngi xalaat ci moom wala boog ñiy xaar ci moom yeneen yu gën a kawe yi ndax li tàmbali la rek waaw bëgg nañoo defaraat yeneen yu nga xamante ne maanaam yu gën a yu gën a mag la ak yu gën a ëpp capacité comme bii ndax bii boo xoolee machine bu ndaw la euh, kii bi ko liggéeyal euh, barigo bi ko defal. du volume bi mu ngi toll ci deux cent litres bëgg nañ tamit ba boo xamante ne day dem ba toll ci ay quatre cent ba ay six cent quoi yu mag waaye mi suñu xel ñu ngi koy xalaat dal ndax boo xoolee tubaab yi li ñuy def dañu ko importer euh, ñu koy jënd lu cher wala ñu koy jéggaan ni tey bu ñu demee ba euh, suñu doomu réew toog xalaat am maanaam xelu maanaam defar lu mel nii pour man kenn képp euh, kenn ku ci nekk war nga cee war a mën a indi daal maanaam gën cee jàpp. Euh, surtout lu mel ne gouvernement buñ ci mënoon a jàpp ñoom tamit euh, ak euh, homme politique wala comme sa bu dee bonne volonté yi tamit ku ci mën a jàpp daal nga jàpp ji ndax it xam naa dana dana dana soxla woo ndimbal quoi koo teg loxo. machine bi gis na defar nañ ko mais boo dee xool am na yenn centrage yoo xam ne day bu nekkoon machine dina a yomb te aussi tamit dina gën a rafet mais am na centrage yoo xam ne damay obligé def ko ak sama loxo mais euh, ni nga bëggee dëgg-dëgg ak bu nekkoon machine ni nga koy ni nga koy amee du doon benn nga xam ne kon euh, dañuy soxla bu baax a baax ñu ñuy jàppale surtout ci wàllu matériel kon donc ñoom moom loolu laa leen di ñaan côté boobu ñu gëstu ñi nga xam ne tamit ñi ngi euh, jéem a def tout di pour seen seen réew surtout les jeunes ñu jàppale leen bu baax a baax a baax a baax surtout ko xam ne amna am idée bi de mi ngi liggéey di jéem kéré ay bagage parce que yag nañu kéré ay ay ay affaire hein. waaw bo dee xol di salon yi donc euh, yag nañu kéré ay bagage yu bari mais nak euh, kon il est temps que bu défété ben affaire ñu def la tout ñu jëm ko wane bu ko défété tamit ñi nga xamné man mën jot man ñoo jappalé ñu jappalé ñu bu ko défé ñu mëna a liggéey leneen ak leneen. je cohabite avec un menuisier métallique du nom de Abdou Abdou Khodos Ndiaye donc qui est un jeune très talentueux et qui a pu à partir euh, donc de matériaux locaux. Euh, concevoir vraiment des œuvres d'art que nous voyons ici à travers euh, cette exposition et cette machine qui est derrière moi, qui est une euh, bétonnière, donc les maçons connaissent bien et les entrepreneurs aussi. Et c'est l'occasion pour nous aussi de venir découvrir donc, euh, ce que produisent ces jeunes Sénégalais qui se sont, qui se sont installés ici et qui travaillent avec des, des moyens. Et donc les encourager aussi à commander leurs produits serait quelque chose de bien. Donc, et ça encouragerait aussi ces jeunes-là à persévérer et à effectivement créer aussi d'autres produits qui peuvent euh, euh, même dépasser donc, euh, le côté national et peuvent être exportés même jusqu'à l'international. Donc nous demandons on appelle à tous les bonnes volontés, aux entrepreneurs, ensuite aux différents agents donc, au niveau du gouvernement de venir assister donc, ces jeunes qui a un talent vraiment extraordinaire et qui fait de belles choses, donc pour qu'il puisse donc euh, développer son, expérience et donner encore d'autres produits et aussi former d'autres jeunes, comme ces jeunes-là qui sont tout autour de lui. Et vraiment, nous demandons au ministère de l'Intérieur euh, de venir et de vraiment aider ces, jeunes-là pour pouvoir donc les, permettre de, mieux développer leur, talent, leur expertise, afin de pouvoir produire des choses qui sont les Sénégalais peuvent utiliser avec euh, moins, moins de dépenses.